dama wax sax depuis des mois la violence sous toutes ses formes s'est déchaînée sur Pastef et sur ses leaders parce que violence physique benn violence la waaye violence verbale beneen xeetu violence la ñu jàppoon nag ni loolu du ñu mën a nangoo ci Sénégal ñun bi ñuy dégmal campagne bi Pastef parti xam-xam la parti programme la parti gis-gis la gis naa léegi ku yëkkati ñaar ci ñetti téere yi nga xam ne bind naa ko di wax lan mooy gis-gisu Pastef ma nekkoon demee na noonu campagne bii dañ koy def campagne thématique mooy fu ñu dem rek li nga xam ne mooy suñu programme ñu jukki ko ci fànn boobu wala ci bërëb boobu wax nañ ni ci juróomi at yi di ñëw ci fukki yi di ñëw ci ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom yi di ñëw lan liggéey foofa daa di yaatal mbir mi ba mën a accepter sax léeg ay discussion am ci ñu ne ñun loolu mooy suñu campagne parce que politique jafewul politique mooy kenn ku ne am nga sañ-sañ ne am naa sama xalaat bu wuuteeg xalaatu ka ca des ngeen ñëw présenté ko askan wi askan wi seet lu leen doy ñu tànn est ce que loolu mais ba ñu commencé ba léegi def nañu sept heures sur les daje nu ñu takku takku takku takku nañ leen tey ak dal ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy gis-gis bi ak programme bi ak yére yi waaye ñi ñu ko séqal est gis nga leen ñu def benn proposition foog ni nag mun nañu jël ay ngànnaay di dal ci kaw nit ñi loolu la ñu mën a tula nangu ci réew mi wax naa démb ci Rufisque ne leen réew mi dafa soppiku dans le bon sens outil yoo xam ne mi ngi suñu loxo te benn boo ci jël xajul ci kenn ci gaay yi bu ci njëkk mooy jàpp naa ni ñoom dañoo fàtte ni tey ñun ñoo nekk ci nguur gi ñun ñooy gouverner ñun ñoo yor l'administration ñoo yor les forces de défense et de sécurité kon loolu doole boobu xajul ci kenn. fii ci Sénégal Pastef rek lañu complot jaay ko doole mu jàkkaarloog loolu am ci ndam keneen mënu ko amul ko mën Sénégal. waaye ñun ñu ne duñu jël loolu nga xam ne yàlla teg na ko suñu loxo pour ñu améliorer. le vécu des Sénégalais di ko xeexee ay nit moo tax ba jëluñu police yónni ko ci nit jëluñu gendarmerie yónni ko ci nit te duñ ko mus a def woowuñu justice naan leen préparer leen dossier diw tëj ko mais on est resté au-dessus de la mêlée mais nag mais nag mais nag moo wax ko fii dafa am lu tubaab di wax trop bon bëgg ñu naan ñoom dañoo changé ñoom ni ñuy yore état bi wuute naag yooyu ba bu nit jalgatee sax la yoon war a def duñ ko def loolu xel mënu koo xalaat moo wax ko sama bopp fii moo wax ko président jomaay bi nga xam ne yéen a ko teg fi mu teg fi mu nekk fii moo wax ko bureaucrate yi nekk seen bureau ñoom ñëpp am na loo xam ne yéen ñëpp yéen a ngi ciy seen bët suñu révolution bii c'est pas des bureaucrates ñoo koy yàq parce que bi ñuy nekk ci naaj bi di xeex bi ñuy dóor bi ñuy dóor di ñu duma bi ñuy tëj kaso ñoom kenn ci ñoom nekk woon fii yéen xeex kon duñ leen mus a demandé loo xam ne jalgati yoon la waaye ku jalgati yoon ba mu ne fang ñu bëgg ko nëpp nëppal wala ku ñu waroon condamné six mois wala un ñu naan ñu ngi koy jox ay 10 jours ak 15 jours loolu day favoriser l'impunité dans un pays mënuñu ko nangu ku yor ay ngannaay da dal ci kaw nit ñi ñun xam nañu suñu capacité police ak gendarmerie su amee ñu ko xam mooy ñun Pastef ñun ñi nga xam ne jël nañ lenn ci ñoom utiliser ko contre ñu pendant des années kon ku ñu bëgg a dem jëri mën nañ la jëri ku yor nga naay xam nañ ko gis nga état réew pour mu dox il faut que ñi nga xam ne ñoo am li ñuy wax les prérogatives régaliennes et le monopole de la violence légitime yor justice yor nga il faut que ñoom ñu nekk des forces d'interposition d'anticipation ba nga xam ne képp ku jóg bëgg a def naka sunu noonu ñu teg loxo ci yow jot naa compte rendu tey mais dinaa dellu ci ci loolu dama ne benn bi ñu am te tey ñu xam ni mënoon nañu def ñoom nañ daan def mooy utiliser ko contre suñuy adversaire te defuñu ko waaye am nañu ñaareel boo xam ne kenn amu ko ci réew mi mooy force de frappe bi ñu am à travers le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise defe naa kenn amu ko ci réew mi te pourtant te pourtant yéen ñi di suñu njaboot lañ leen njëkk mu mus a wax mooy bu leen saaga bu leen xaste bu leen agressé bu leen dóore dem leen ngeen def farata ñibbi seen kër léegi nag naka la ñu mën a yor loolu lépp ay nit am sañ-sañu tey di dal suñu kaw di jam suñuy nit ay paaka di leen dóor ay jaasi tey jot naa xibaar ñoom bañ leen interpellé démb te Thiès la ñu fekk ci ñoom ci ay grenade lacrymogène fekk ko ci ñoom ak ay ci ay duul duuy parce que xam naa ni gaaw nañu denc euh, gànnaay yi waaye bal yaa ngi woon foofu la fekk ci ñoom ci ay jaase ki paaka ak yeneen gànnaay yoo xam ne en période électorale grenade lacrymogène kan moo am droit yor ku dul armée police gendarmerie dans un pays te lii lépp nag mënoon na ñàkk tey ñi nekk saint yu nekk ci hôpital bi mënoon na ñàkk bu doon depuis bi début bi le début war a def def nañ ko su ma waxee nii nag nit ñi dañ naan moom mooy premier ministre déedéet man dama dama dama ràññeet ne ñaar bi campagne bi commencé ba léegi dama tolloole sama bopp ak candidat yëpp musuma utiliser mes prérogatives de premier ministre pour dugal ko ci campagne bi musuma utiliser ay auto wala carburant wala lépp lu administration moom pour campagne bi ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bokk ci gendarmerie ñu affecté leen ci sama sécurité bi campagne bi démarré dama leen ne yéen ñëpp da ngeen toog ma dellu ak sama sécurité ñoom waa au commandement ñoo ne lànk na lànk nañ ba tëdd ci suuf parce que sama sécurité en tant que premier ministre seen responsabilité la kon foofu rek ñoo ñu ànd ak man. waaye wax naa leen ne leen xanaa xamu leen ni ñii bu ñu àndee ñun man sax dañ may gêner parce que ñun bu ñu tollee fu ñuy attaqué ñun mun nañu régler suñu problème ñoom nag comme dañoo am ay règles ñuy topp. léeg dina am loo xam ne mënul am seen kanam démb si guddi bi may jógee Rufisque dama woo ministre des forces armées ma ne ko à partir de tey ci guddi dama la ko ñaan rek lépp luy sécurité d'État dama bëgg nga retirer ma ko ci sama convoi ma dem ak samay militants ak sama sécurité pour régler suñuy problème kon bi campagne bi démarré ba léegi man dama tolloole sama bopp ak tous les candidats benn région ba woo gouverneur bi wala mu woo bi utiliser ma benn moyen d'état et suñu campagne bi dugaluma ci xaalisu état loolu dama bëgg leer loolu moo tax su may wax tey dama wax en tant que Ousmane Sonko président du parti Pastef les Patriotes tête de liste nationale moo tax ma mën a interpeller le président de la république ne ko président de la république am na loo xam ne il faut ñu xoolaat ko parce que tamit suñu njaboot gi lu sacré la ci ñun ndax suñu njaboot gi dañ leen laaj lu ne ñu jox ñu ko dañu fas yéene waat laaj ñu bëree bëree bari te dinañ ñu ko jox ndax réew mi yéen ñii yéen a koy tabax yéen woo ne leen liggéey sangam accompagnement sangam ngeen ànd ak ñu ñu def ko bu ngeen tooñe dinañ jàpp seen loxo ne leen yéen tooñ waaye du ñu nangu ay nit di utiliser ay samba booy di dal suñu njaboot gi di leen gaañ ñu naan non parce que ñun ñoo takk càq bi fii càq amu fi fii càq amu fi gis nga nguur feesul suñu bët. yàllaa ñu ko jox jaarale ko ci peuple sénégalais saa yu ne jeex na ñu xam ni jeex na waaye tànk mi ngi suñu loxo dëgg rek la ñuy doxal dëgg rek la ñuy wax du ñu seet lu neex nit du ñu raay nit du ñu nëpp nëppal déglu ma ma teg nag fu ma bëgg a daanelee que li ñu war waxtaan ci pôle bi li ñu waxtaan ci pôle bi ëllëg ci meeting ba ñuy def fële stade Amadou Barry ji Géejawaay nga xam ne mooy meeting bu pôle bii di pôle Ndakaaru boole les cinq départements de région de Dakar incha allah fa lañ koy jugee waaye li ma bëgg wax mooy. dégg naa waxuñu bëree bëri bëri bëri démb ak tey ñenn ñi nee nañu yi xam nañ ni élection bi duñ ci am dara moo tax ñu bëgg koo saboté may dalal seen xel élection bii kenn mënu koo saboté élection bi dina am ci dimanche jàmm sénégalais yi dinañ génn voté massivement et on va gagner de manière écrasante cette élection inchallah loolu na seen xel dal kenn mënul saboter élection bi ku ko bëgg a gën naa ni li ciy métti ci yow lay jóge waaye élection bi dina am lu mu war a amee muy benn ñaareel bi li wax démb li tax ma wax ko te waxee ko noonu amoon naa ci li ma jublu loolu ma ci jublu nag tey am naa ci résultat ndax li ñu def tey buñ ko teeloon def du ñu yegg si fii ndax diggante démb ci guddi à Thiès ak tey à saint lu mat 70 samba boy yu àndoon ak ñooñu teg nañ leen loxo. ba tey ñu ngi ci yoonu ñu ngi ci loxo yoon man loolu naa demandé loolu laa demandé woon loolu laa demandé depuis le loolu laa demandé depuis six mois damay wax mu leer juróom benn weer a ngi nii ma wax ko kilifa gi ma yilif ci état